ñu kii mais mu mel ni aussi ci li bokk dama koy ramasser waale ci li gën a li forcer dafa mel ni jaar-jaar bi nga jaar dans le mouvement euh, nawetaan sànq waxoo ko euh, donc say début ci mouvement nawetaan mm. jaar nga ci donc dem nekkoon nga ORCAV nekk on ONCAV donc ba ba ba yor sport bi nga nekk ministère des sports aussi pendant huit ans trois mois ba doon ñëw ci tënkal ñu sa jaar-jaar ci ministère des sports les moments forts nga la parce que sénégalais yi nañ rek lañ xam Nous, équipe nous nous ñuy nous nu ñuy vous avez en charge les équipes nationales de football dans leurs différentes compositions équipe nationale de basket les sports de combat les sports. 65 fédérations 65 hein. fédérations 65 disciplines sportives à gérer. <laughs> merci Les mu nekk jafe-jafe yoo dal les sénégalais sont exigeants ministre bi liggéey na lii liggéeyu lii fédération lii ba ñëw ci yi nga xam nga ministère des sports nag ba dama lay wax leen Sénégal moo tëdd noonu sax su neexee ñëpp a ko bokk su naqaree yàq la ministre yi mhm. mhm. loolu la Sénégal doxe te Sénégal mooy dëkk boo xamante ne aussi ni ñu mel intéressé wu leen ni ñu bëgg a mel rek a leen intéressé mhm. donc moo tax du ñu évaluer li ñu yàlla defal duñ ci mën a bëgg parce que bu fekkee ne yow yàlla dafa dogal ci yow nga am euh, un million sa poche mu mun a faj lu bare bari te yow sa xel ci deux millions la ne mhm. doo xam li million di saf parce que doo ko faale yaa sa bët yaa ngi ko teg ci deux millions mhm. di jàmbat di kaas mhm. man nag yàlla daf ma teg loo xamante ne bi ma président Macky Sall di woo ci bopp ministère des sports bi jour bi ma tegee sama tànk ci coono la commencé d'ailleurs passation de service ba coow lu dul jeex amoon que le ministre sortant am na lu mu waxoon coow li ne kur ñu naan passation ba et cetera et Madame dem stade Léopold Senghor Sénégal war football c'était le 28 le 23 juillet Sénégal war football le 5 septembre Madame, dem stade ba amul gazon amul toiture amul dara C'est Sénégal war football les filles, parce que gàcce la won ci ñun Sénégal di dem di abbi ay Maroc le feneen pour jouer ma jël sama bureau yóbbu ko stade ba ma fa dajé ak entrepreneur yi wax ak ñom ku né jël engagement ñu signé. bu ma xeyé fa lay nous ba goudi yalla dogal ñu fexé gazon am fexé lépp am bañ footballé fi le 5 septembre té le 5 septembre ci le commencé équipe nationale du Sénégal commencé di am ay résultats positifs. Égypte lañ door fi 2-0. ci stade Léopold Senghor c'est nañ ko ba muju dans les conditions yu tax ñu mëna recevoir fi nga xamante moy mooy Sénégal. Mhm loolu nekk it loo xamante ne lu ma marqué la parce que coono boo ko commencé day tax nga gën a góorgóorlu ba li ci kanam mën a nekk loo xamante ne lu bees lay nekk lu arrangé sénégalais yi lay nekk euh, ci lañ commencé problème ou prime amoon problème ou voyage amoon problème ou prise en charge amoon na loolu yëpp ñu woo ci tous les acteurs waxtaane ko xool li état bi mën ba ñu ko ci tous les problèmes là on les avait éliminés ñëpp nex nek ben. xeex waroo bi nekkoon ci biir fédération ak état ñuy xuloo guddi ak bëcëk loolu lépp ñu régler ko parce que je pense que c'est dans la paix qu'on peut faire des résultats positifs nit ñi bu ñu nekkee ci jàmm rek dinañ am xelu liggéey xam fu ñu jëm nous commencé à faire ay campagne ci basket ci yeneen discipline mais ministère des sports est na ci ministère yi gën a fait. parce que Tagat yaram mën nga programmé des compétition mais am compétition yu lay Et, te je qui ci ministère le président Macky Sall nekk compétition internationale j'ai parlé de 65 fédérations. te lu ci est a bëri ñëpp compétition internationale. les plus nekkoon li leen war compétition internationale enveloppe est de 900 millions 900 millions 900 millions ñaari match pour 65 fédérations. mais lolo fi newoon. ok c'est avec le président Macky Sall man ba ma fay jógee dépassé 5 milliards. Mhm. ba nga xamante ne sax plafond tout dépend De li soxla. Nous ñu ko ministère des finances jox parce que fexe nañ ba jël sport au cœur des politiques publiques au cœur des grandes décisions du chef de l'État mu nangul aussi ñu déplafonné li nga l'enveloppe des compétitions internationales lolo mon tax équipe yi déggatoo parce que président Macky Sall jël la décision politique qu'il fallait au-delà des infrastructures sportives il nga xam des ay milliards ñoo ci milliards aussi pour def ko prise en charge des compétitions internationales Lolo, beaucoup le milieu sportif mais ça ne pouvait pas se limiter là parce que un ministre des sports bu une équipe gagnée war a dem compétition internationale nga làmb kees yi d'âge il bi a une la dërëm fi mhm. donc war ngaa mën a jóg nag mhm. ami jafe-jafe mhm. doo tëdd doo nelaw eh, dama lay jox sax anecdote parce que Hamgo bi Sénégal di reprendre son match contre l'Afrique du Sud Polo Koné eh, am na ñu fekkee mbir yi ñu may dégg eh, dañu dem ba ñu ne gannaaw suba lañ wara dem armée bi waron jël équipe bi en France yóbbu len Polo Koné un vendredi té match bi lundi la vendredi le ministre des forces armées woo ma eh, avion bi dafa panne te bobu équipe bangi France di mhm. pare pour dem mhm. xam nga ministre des sports bu équipe am a dem mhm. ñu fexé xex ko administrativement fédération xex ko ba wara jouer ki match bi ñu nan la avion amatul il est vendredi à midi foy jële xaliss ba louer avion ba mëna dem jafé jafe lay indi waaye bu la yalla naree dimbalé daf lay teg ci yoon biñ ñu ko waxé ma génn sama bureau yónneewu di dem finance. bima duggé ci corniche bi y avait un bouchon fou. man xaw fan la motard bi jóge xamna naa dañ ñu xàmmee rek. ñew nañ jékati ñu loxo chauffeur bi. xalal ñu yoon wi ñu dem finance. bañ demee ba finance. dañu fekk le directeur général du budget di génn. mu ak ñun ci buntu bi né day julli ji kérok julli jiwul. Mhm. ci lañu nekk le ministre des des finances le ministre du budget ak ñi nga ñoo qui ci bi mhm. dañ leen moins de 45 minutes mhm. ñu mëna de l'argent out avionneur ba avionneur bi mëna jël l'équipe pour leen fi nga donc di bureau rek mhm. bu mais on n'était pas au bout de notre peine parce que avion bi aussi joueurs yi dem nañ mais amuñu autorisation d'atterrissage parce qu'Afrique du Sud, il nous faut au moins une semaine pour étudier le dossier et accorder à l'avionneur pour que nous mën a wàcc. Bruno Diatta yàlla na ko yàlla yërëm moom laa woo. motul 15 minutes. moo woote Afrique du Sud. yónnee ma autorisation moi yónnee ko ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñoom avionneur bi. pour que ñu mën a dem Polokwane. loolu am na fi té joueur yi nek ci biir avion bi bu sétané li lañ koy soog xam tey la ci soog wax publiquement. Mhm. kenn mësu ko xam donc pour vous dire que gestion ministère surtout ministère des sports dana am lo xamantene ne ki njiit bi nag moo koy bopam mhm. ken du ko mhm. Mhm. donc kep ku fa ne dafa soxla ndimbal Motax ma ngi encourager le nouveau ministre des sports suñu xarit la Diop dem campagne dafa metti sénégalais yi ku ci nek ak sa sa yar ku ci nek ak ni ngay gisé mais il faut toujours trouver l'équilibre pour que ku ne gis ci sa parce que ministère des sports moy ministère bo xam mëno affecté président fédération mëno ko def dara tant que deful yenn fautes yi nga retirer délégation du pouvoir bi mëno ko def dara beaucoup ak ministère de l'éducation nga de ne benn professeur mën nga koo jëlee Pikine yobou ko fatik comme sanction mais sport amul loolu. Mhm. te ñiy jiite fédération yi ay personnalité la ñu. Mhm. ñii nekk de grands avocats ñii nekk ay capitaine d' industrie ñii nekk mhm. leneen ak leneen. donc boo nekkee ministère de ministre des sports li nga mën mooy fexe ba nit ñi gis li ngay gis. effectivement ku ne nangoo dugal loxoom te bañ mu yàqu. loolu boo ko amee rek am jàmm làmb jaa ngi ni. xam nga mbër yi moom. doo leen dóor doo leen saaga. xamoo loo leen def. lu dul déggook ñoom. mais pour nga dégg ak ñom il faut nga xam li nga leen di wax. effectivement il faut aussi ñom ñu sentir né jox nga leen cër. Mhm. lolu bu amé rek. Mhm. famille bi day calme. Mhm. té famille bi bu calmee proposition yu bax ñoy génn proposition yu bax yoy nak ñoy tax ngay def ay résultats. effectivement il y a aussi le comité olympique nek bras ministère. nek bras wu état bi. la mère des fédérations c'est un levier extrêmement important sur lequel il faut s'appuyer pour faire de bons résultats dans le ministère dans le ministère des sports macha allah %e euh, am na solo je :fra pense :fra que :fra